Charles maa ngi lay nuyu. waaw maa lay fay Cheikh Tidiane ak euh, suñu plateau euh, très testostérone. ce matin ak ñoo xamante ne. du ce matin rek démb ba tey. <laughs> démb ba tey depuis Cheikh Tidiane jël relais bi ci naata voilà. waaw ah, ñu noonu daal. Ah, affaire bi góore na trop heureusement que Oumy Samba est là. waaw mais on peut virer ah, Marcel amener Oumy peut virer Marcel amener de loolu du ci dal bu ci dalee moom <laughs> waaye yow. bu <laughs> euh, Chérif dama lay bàyyi ak euh, Charles nga jublu ci rapport bi. waaw rapport Cour des comptes et après mais laata loolu gis nañ euh, Mansour Faye moom mi nga xamante ni ministère am. cour bi nee na rawatina ki nga xamante ni moo nekkoon dage bi di Aliou Sow dana war a ubbi information judiciaire ci surfacturation ci wàllu liggéey bi mais dégg nga li mu wax ci l' observateur bëgg nañ un commentaire quand même sur la sortie du ministre bi accusé sax waa cour des comptes ñi mën a enquête bi ne ay politiciens lañ. waaw jërëjëf mais loolu du lu bees nga bokk si kuréel bu nekk exécutif di accuser institution boo xamante ne dafa am maanaa euh, homme d'état nag euh, da koy mot cour des comptes ñaari façon la am si liggéey benn façon bi mooy maanaam dafay def en assemblée générale mu teg son programme d' intervention jox ko autorité ban autorité la koy jox président de la république mu valider ko mu am leneen loo xamante ne aussi mën na am par rapport à la cour de comptes nan ay nit yu sérieux ay nit yu sérieux ñoom aussi ñu am njaboot ñoom aussi ñu am njaboot kuréel googu président de la république mun na ko aussi saisir pour un but bien précis circonstancié dans le cas nécessairement de la gestion des fonds du Covid 1000 milliards. 1000 milliards yooyu jëluñu ko feneen ku dul ci askan wi président ne fokk ñu xool pendant que ñuy def enquête bi yëpp yëpp yëpp di ko def le président reçoit des notes épisodiques maanaam si avancement enquête bi dañ koy jottali ay message pour mu xam liggéey bi lu muy demee donc président moo gën a xam moo gën a xam lu mu demee président bi nag bu mu koy recevoir mun na si xam ba mun na tam am lu mu siy laaj buñ paree liggéey googu cour de comptes day jël rapport provisoire maanaam ñoo xamante ne ñoon la doon liggéeyal di enquête seen kaw mu am lu mu lay laaj si ay fait yoo xamante ni pour moom war nañ ko leeral ku si nekk nga bind tontu ko bu paree loolu si euh, bu lay jox mission provisoire ba si moment boobu nag la koy jox ñoo xamante ne ñooñu ñoo si am droit ak autorité ga autorité ga ba léegi muy président de la république bu pare nag ba rapport bi définitif loolu dootu ko jox kenn ku dul autorité autorité bi seule personne habilitée à am le pouvoir kii euh, a am le rapport kan moom rapport bi nag bu génnee nga bëgg ne que rapport bi feneen la génnee bëgg a tuumal waa Euh, cour des comptes ba pare nekk kilifa bokk ci gouvernement mhm. ci jamono yu ñu nekk nii ci Sénégal nga xamante ne dafa am importance pour ñu xam qu'on a des institutions qui sont stables et crédibles dafa am wax boo xam ne kenn du ko comprendre mhm. c'est d'autant que rapport bi kan la génn <coughs> on a beaucoup parlé ci biir rapport bi mais kan la génn en tout cas il a été rendu public le 12 décembre le décembre mooy kañ à 17 heures 17 heures que lan moo amoon le 12 décembre. lan moo amoon premier ministre à l'Assemblée. exactement donc le 12 décembre dafa am loo xamante ne mu ngi xew assemblée nationale mooy la politique la, la déclaration de politique générale du premier ministre affaire bi génn. mais affaire bi bu muy génn nit ñi man c'est que qu'avant-hier laa si def attention bu mu ko jotee parce que affaire bi bu muy génn coow bi bëri newuloon sur le site ñoo leen sur le site. mais yónnee nañ ko quand même bi ci. kan moo waaw mais kan moo ko yónni presse bi. seen service communication bu cour des comptes. Euh, euh, non dafa am koo xamante ne non service communication cour des comptes mënu ko yónnee. ah bon en tout cas nous ici. pour la seule et simple raison que sur ce rapport la il est écrit ou que bu ko yónnee dafa recevoir ordre il est écrit avertissement ce document est strictement confidentiel en la page 3. uniquement réservé à ñoo xamante ne ñoom ñoo am ñoom la cour des comptes jàpp. pour jox leen élément bi c'est écrit à la page 3. waaw ah, mais bii moom service communication Cour des comptes ñoo ko yónnee en tout waaw man xam naa ko le 12 hmm. la génn e que ce n'est pas le le la Cour de comptes qui a donné la Cour des comptes buy jox affaire bi di ko jox président c'est un document physique administration sénégalaise dafa am muy doxee. Hmm. dafa am lu muy doxee c'est des documents physiques. Hmm. dafa am lu ñu koy joxe. après nag on peut dire tout à l'information nga bëgg ñu justement man dama doon ne. avons le droit à l'information mooy képp koo xamante ne da ngay utiliser suñuy xaalis muy gouvernement muy état sénégalais waxuma la journaliste parce que souvent bu ñuy wax droit à l'information la ñuy wax journaliste. mais c'est pas que le journaliste c'est le contribuable c'est tout le sénégalais qui a droit à l'information loolu tax ma ne woon lu mel nii bu amee dañ koy teg. si loo xamante ne mooy sénégalais mun si jot dafa am loo xamante ne dañ koy wax classement parce que le le le rapport comme l'a dit maître Doudou Ndoye quand le président de la république am jot bu ko jotee dafa am ay possibilités est-ce que président nit ñi mun nañ jóg en même temps yëpp rapport bi président am na muy def dañ koy jox président de la république il reçoit le rapport possibilité yoo xamante ne am na ko si mbaa mu porter la plainte mbaa mu mu mu classé le dossier mbaa mu ne nañ xoolaat saytu affaire bi yóbbu ko ci ay juridiction spécialisée pour que nu xool faute budgétaire bokkut ak sàcc donc président am na loolu yëpp ñit ñi man suma xalaat mooy pourquoi mu génne le parce que comment c'est une décision de la cour je dis encore une fois il est écrit et il est important ngeen dem si page boobu la page 3 que le, le rapport est strictement confidentiel est uniquement réservé à ceux qui ont droit c'est écrit sur le tout mhm. et je me suis renseigné man nag lu ma si étonné mooy pourquoi rapport bu génn surtout rapport boo xamante ne moment bu mu génn ak fu ñu jëm ça fait l'affaire de qui kan lay déranger ça ne peut kan lay gën mais un rapport qui sort le 12 jour déclaration politique générale jour euh, déclaration politique générale mun nañ xalaat pourquoi mu génn jour boobu Le rapport, il date du 19 août définitif. Le rapport date du 19 août définitif. Donc, il sort le 12. Août, il est... août ba décembre. août bi le rapport définitif ñu boucler ko. il faut c'est écrit 19 août le rapport bi ñu boucler ko définitif. le rapport est mis sur la place publique le 12. mais c'est un choix de la cour Charles parce que. waaw ouais, même, si c'est confidentiel. ñoom aussi ñoom ñooy xool cible bi quoi mais le choix n'est pas fortuit. oui oui non moo tax on peut même lire passage bi avertissement yi ñoom ñi nga wax quoi dañ ne ce rapport définitif est strictement confidentiel et ne saurait être communiqué à des détenteurs autres que ceux choisis par la Cour des comptes. moo tax man la bon ñun médias yi. c'est la Cour des comptes qui a décidé. d'envoyer le euh, rapport aux médias. j'ai une autre information bu ma am d'un ancien membre de la Cour des comptes aussi pour wax comment ça moi j'ai une autre lecture aussi il faut me permettre ba am beneen lecture mhm. ah, pourquoi kayit boobu génn le jour le 12 pourquoi le jour de la déclaration de politique générale qui plus est 12 mois avant présentation d'une probable candidature kayit boo xamante ne bu génnee kan la dul président de la république jàngat bu may def mooy est-ce que le président de la république bëgg na dem troisième mandat waaw oui mais c'est justement ça l'analyse j'analyse. oui vas-y bon est-ce que mun na. lu tax parce que tout simplement rapport boo xamante ne day gën a nii et qui n'était en aucun cas favorable maanaam 1000 milliards ñu jox nga jël 1000 milliards teg ko si ay loxo nit ci biir loolu ñu ne la ñaar possibilité moo amul ñett ñu ñëw ñu ne la tout est nga ne da ngay dem troisième mandat nit ñi tàccu la. ñu ne ñu la ah am na ay loo xamante ne ça relève de faute budgétaire nañ dem mu leeral. ñu ne ah lii dootul ay faute lii ay vol information bu poursuite judiciaire am na si ñuy ne troisième mandat est-ce que président ce n'est pas le moyen pour lui de couper définitivement la route du troisième mandat am ñoo xamante ne da leen di. écarté leen quoi quoi que ces partisans continuent à soutenir cette question. non c'est parti euh, waaw aju ma jotee fii di nga dégg gars yi ne Macky Sall nekk firndeel ko. encore une fois je dis. comment se fait-il que nit bëgg a dem troisième mandat kon nga am benn rapport boo xamante ne il est accablant contre yow bii di dem uti troisième mandat amul sens mais non ça dépend Charles est-ce que ni ni ni mu war a traité maintenant recommandation yi loolu aussi du jox suite maanaam taxawaayam ci président waaw léegi bu dee jëfee na recommandation yi xëy na mën a nekk un aspect positif pour lui exactement nan continuer ma réflexion bu ñu ñëwee si loolu on parle d'amnistie non amnistie dañuy amnistier les faits jusqu'au de telle année jusqu'au 31 décembre 2022 ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi bokk ci biir affaire yi ñoom tam ñu jàll ça veut dire quoi est-ce que kooku mun na ñëw laajte su ñoo xamante ne amnistie ñoom dañu ci bokk mais amnistie balaa muy am Charles fokk ñu des faits la des faits. condamné la ba pare. waaw parce que ñii fi mu nekk nii il y a la moom moom la ñuy wax. waaw ñoom ñu war a dem leeral mbir yi ci kanamu yoon bu fekkee ni. ubbi nañu encore une fois bu ñu waxee tous les faits jusqu'au maanaam. 31 décembre ces faits-là sont effacés munoo si ñëw après parce qu'ils n'existent plus muy 2025 2040 munoo si ñëwaat parce que les faits n'existent plus donc à partir de ce moment boo xalaatee noonu nga gis nga ne ah bu ñu am li amnistie bu ñu ko si tegee est-ce que dina ñëwaat ni dama am lu may ut ba pare di laajaat lu may laaj ak ñoo xamante ne ils ont été pris la main dans le sac donc jàngat bi man fa laa teg mooy pourquoi le 12 est-ce que c'était par rapport à un premier ministre encombrant ou alors parce que dafa am possibilité boo xamante ne le président de la république xalaatul dem troisième mandat man fa laa ko kal xalaatul dem troisième mandat. mais cour liggéey moom yoonam nekkul ci mandat président wala agenda politique moom it dafa am agenda am def na rapport rapport bi pare na mu jébal ko. askan c'est finalement un peu donner a aucune politique dedans président de la République boo xamante ne quand ñu ngi wax troisième mandat justement ce ce rapport là tombe le 19 août man bëgg naa Sénégalais yi quand lu xalaat ñu ne loo xamante ne le 19 août la pare. le 12 décembre mu génn. Mm. déjà ça quand même. le jour même de la de la déclaration de politique générale est-ce que c'était pour atténuer wax ba est-ce que dafa amoon lu ñu ragal xëy na mais am na beneen lecture. Mm. mooy que c'est un rapport qui est accablant mais accablant pour kin pour kan accablant pour ñoo xamante ne dañ leen pointer du doigt wala accablant pour koo xamante ne ñoom ak ku leen jiital bu dee loolu am na à quelle est-ce que loolu dafa def ça veut dire c'est une lecture claire boo xamante ne mu ngi koy yónni sénégalais yi pour ne ak ñoo xamante ne duñu sénégalais rek parce que Sénégal moom kenn doxul. Mhm. est-ce que c'est pour dire man noonu laa ko. jàng man désormais comprendre waaw nga bañ ko. comprendre ah, non non non vraiment. ah Charles c'est euh, c'est clair en tout cas. waaw bañ nga ko ndax am na wala du am. je pense que <laughs> le lien bon je ne comprends pas le lien quoi honnêtement parce que yaa ngi wax confidentialité mais rapport bi bi média yi jot moom. cour des comptes seen service communication moo ko yónnee ce jour là à 17h. amul ñun jote woon. le rapport et c'est une décision boo xamante ne ñoom ñoo ko jëlal seen bopp. donc bu coïncider nag ak le premier ministre mu nekk assemblée nationale bon. je ne vois le lien. loolu la ñu wax mais moi je sais que le rapport a été remis aussi le 12 à une tierce personne koo xamante ne dafa bokk si ñuy def revue de presse ak entre. information buy gën a fii Sénégal c'est toujours entre yenn heure yoo xamante ne yooyu la fiy gën loolu ñun ay yàgg nañ xam mbir bi lu muy doxe fii ay une sa personne koo xamante ni moo alimenté le réseau loolu tam xam naa ko. mais nga yaakaar nga yaakaar ni président Macky Sall paaka bi koy rendi moom dina ko daas jox ko ay noonu. bu fekkente ne moom xalaatul dem. justement troisième mandat ba pare am ñoo xamante ne buggu leen gis ñoom ñu dox fii pour troisième pour pour succéder ko mu am beneen idée boo xamante ne moom jàpp na ko c'est le meilleur moyen. Euh, mais quand tu dis euh, ñoo xam ne ni buggul ñu succéder ko et il y a euh, son beau-frère boo xam ne ni daf ko jege je pense qu'il n'est pas je ne dirais pas qu'il n'est waaye rapport bi. pour succéder ko. waaw non je parle de succession. pour succéder ko tu parles du beau-frère. non non non dama ba léegi ci rapport bi la ñu nekk te beau-frère bi moom ci rapport bi ñu ngi ko ciy tudd gis nañ ko tey jii moom moo nekk à la une de l'observateur. moo dama ne. Ah. dama ne la la la Cour des comptes est une institution l'une des premières institutions de ce pays surtout quand il s'agit de contrôle et c'est très sérieux et absolument rigoureux ay nit ñoo fa nekk def liggéey à la commande. du chef de l'État bu ñuy def liggéey bi ci commande du chef d'État par rapport à justement les Covid dañuy def ay notes épisodiques di ko jof le président de la République qui à n'importe quel moment xam na évolution affaire bi mais Charles le président bu fekkee ni buggul def troisième mandat am na yeneen yoon yu mu ko mën a jaar lu dul euh, cour des comptes génne euh, maanaam rapport bu nga xamante ni nii ay ñoñam ñoom ñoon bu fekkee ni li ñuy wax dëgg la ñoom la ñu nar a topp ñoom la ñu a tëj ci kaso bi te wax dëgg yàlla kenn du ànd ak say nit di leen yéene lu mel noonu xanaa euh, dama ne encore une fu ma ko teg moom defe naa ko ñu ko bëgg a comprendre dafa dañ koy comprendre ñu ko bëggul. comprendre on à comprendre. mais je je j'explique lu ma wax dafa leer. dama ne comment peut-on publier benn rapport. fini le 19 public jàkkaarloo da gars yi mu gën a leer quoi. <laughs> non dafa leer nañ maanaam ñu may dégg. ñu koy dégg fu mu koy wax wolof la. rapport bi le 19 août il a été bouclé. définitif laa wax. biir ce rapport il est dit qu'il est strictement confidentiel le décembre. rapport bi génn. soit quatre mois après. quatre mois après comme par hasard le jour de la déclaration de politique générale la génn en fin de journée début de soirée la génn mu nit ñi jot si nit ñi exploité ko nit ñi dal si nu mu war a dal lu dëgg si biir loolu mën la rapport banque ba mu ba ko jëlee liir ko lu ma si njëkk jaaxal mooy aspect boobu dama ko liir ba pare xool ko ba pare mais aspect boobu jaaxal ma ma ne et après premier rapport. et après le président il fait quoi bu amee rapport bi publication bi politique daf cee daf cee donc ci biir mu am fu mu jóge ñooñu teg ko à la disposition léegi ku si nekk mun na approprier affaire bi man maa ko jël diffuser ko mais xam naa aussi fu mu jógee feneen fu dul foofu ak ñu ko jox ak ñu mu ko jox donc loolu aussi xam naa ko du dëgg maintenant il y a une claire lecture man elle est politique maanaam nit ñi mun nga def lecture bu la neexee sur la gestion des affaires ak lu demee noonu mais dafa am beneen lecture politique boo xamante ni nit ñi faw ñu am ko aussi moo tax moo tax ma ne ko sànq est-ce que c'est pas justement donner raison ak Mansour à Mansour Faye euh, ci c'est une question daf ci laxasu non non Mansour Faye ngeen def rapport bi ñooñu lay joxoñ ñooñu lay wax ni que ñoom ñoo mbubboo politique pour accabler leen Certains ont des casquettes politiques et se cachent derrière les institutions pour atteindre leur but. C'est ce que, c'est que Mansour Faye dit. Donc, euh, est-ce que ça ne lui donne pas raison finalement Non, mais Charles parle bi bu dee nañ ci Charles na Charles lañ ko dénkoon nu mu ko yore ak fu mu ko dugal bu fekkee ni indi nga ay tontu. baax boo indiwul ay tontu nga guqi mbaa nga dem ci kaso bi loolu la Sénégalais yi bëgg. voilà merci euh, <laughs> Charles Faye ci euh, jàngat bi euh, dañuy euh, dem ci gan gi léegi di Abdourahmane Sow ex coordonnateur bu COS M23 Chérif Dia di ko dalal léegi léegi. <laughs>